ci lan nga nekk. gërëm yàlla sant leen diw bu wér. waaw maa ngi jógee fa si affaire matos yi ñu ngi si ñu si bagage yi waaw ñu si bagage bu baax a baax. waaw jàmm ak tawfeex rek incha allah boo xoolee ne xam ne ndam la quoi waaw ñu ñaan yàlla taal lañ suñu loxo ñëpp képp ku dëgg Pikine ak fépp foo mën nekk ñu lay taalal nga ñaanal ndam bu seet bu gaaw waaw si kàttanu yàlla waaw. Franc nee na une minute lay daan soxla. non te dañoo war a leeral bu soobee yàlla wala xaasi mu doon lu nekk waxam la rek ñaari góor gi sa borom góor taxaw wax si 30 secondes ñun ñun toll nañ fi ñuy jàppale temps si làmb dañoo ñëw libéré ko mu gaaw wóor na yàlla luñ la yóbbu moom sax set gépp dañoo nekk ci ginnaaw Franc di ko dooleel. rawatina 100 pour cent parcelle bi. nga gis Modou Lo ñëw na ci signature bi ànd ak moom jàppale ko gis nañ Ama Baldé combat bi enjeu wu bi fan la toll. waaw loolu yëpp nekk fi gën ko waaw ñoom 100 pour pour cent lañ doole. waaw pour cent moo doole 100 pour day du gis dara lépp ñoo koy def su ko attanu yàlla. lépp lépp lu mu laaj rek ànd nañ si lépp bu dee xeex ànd nañ si xeex bu dee bëri ba tey ñu koy yàq te baax incha allah ak gis nga ña ngay